sayidina wa moolana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu di leen ci bis bu tedd bi di ñaan yàlla sunu borom tabaaraka wa taala mu nangul ñu mboolem jaamu ci def ñoo ngi nuyu di ziyaara sëriñ bi itam di ñaan yàlla mu yàggal ko fi ba mu eggale mboolem naalam yépp cëg tal ak jàmm ak wér te ñu ànd koog moom mbokki jullit yi jullit bokk na ca waru gar wa ko njëkk a war moo xam muy góor wala muy jigéen mooy mu nafaraat gëm gim gëm borom bi tabaraka wa taala ngir bu fekkee gëm gëm ko gëm noonu la diglee moom yàlla ñu gëme ko noona mu gën a suuxan ngëm googee gën koo dëgëral su fekkee nafaraan na ak gëmam yàlla gis ne am na lu ca manki wala am na lu cay yox-yox yi mu gën koo dëgëralaat kon nafar ak gëm gim gëm yàlla bokk na ci li ko njëkk a war su loolu weesoo nag ginnaaw bam xoolee ba gis ne gëmee na yàlla nañ ko war a gëmee la ca sësaat mooy mu jàng faratay jëmmam jàng gi mu jàng faratay jëmmam te mooy yi nga xamante ni borom bi daf ko koo gàll te kenn mënu ko caa wuutu faratey jëm yooyee su ko jàngee ba noppi nag am na lu ca sësaat mooy mu jàngal ko ak njabootam jàngal ko ay soxnaam jàngal ko ay doomam jàngal ko képp koo xam ne dafa aju ci moom moo tax nag sëriñ bi radiallahu anhu ak taalibeem yu mag ya nga xamante ni dañoo doon xañtu wala di xañtu lépp loo xamante ni am na njëriñ ci àdduna am njëriñ ci àllaaxira daanañ laaj sëñ bi ay laaj yoo xamante ni luy defar seen diine la ak luy defar seenu nekkin ci àdduna di defar itam seen àllaaxira moo tax nag am na kilifa gu mag bu ñuy wax sëñ Omar Diop bokkoon ci ñi àndoon ak sëriñ bi ca jamono yàgg ya rawatina ca Mbàkke Kajoor laajoon na sëriñ bi laaj boo xamante nii yitteel na bépp jullit waaye yitteel na itam bépp taalibe te mooy dafa laajoon moom sëñ Omar Diop moomu dafa laajoon sëriñ bi ne ko dama bëgg a xam warugar yi nga xamante ni moom la yàlla gàll ci loosu boroom kër mu yoreel ko ak njabootam yoreel ko ay soxnaam aki doomam loola nag di laaj bu am solo bi mu ko laajee sëriñ bi sëriñ bi yemul ci tontu waaye daf ko bind ngir bëgg mu des fi ba jëmmi jamono ji itam ñu mën koy nettali ngir ñu mën koo jëfee mën caa jariñu tontu loolee sëriñ bi tontu woon sëñ Omar Diop mi ngi ko tudde woon miftaaxul xuyuub fii jawaabi na Omar Diop mu wax ko ca ne li ma lay tontu mooy la nga xamante ni al allaama abdullahi sidi abdullahi ibnu Mas'ud moom la tontu woon nee na woon jaadu na lool war na lool ci borom kër mu jàngal soxnaam wala ay soxnaam lañu aajowoo ci seen mbiri diine mu joxe ci misaal ne war na ci moom mu jàngal leen nu ñuy laabe nu ñuy jàppe nu ñuy tiime ak nu ñuy sangoo set jàngal leen ni ñuy jàppe waaye du ca yem waaye da leen di jàngal farata bañ mën koo xàmmee ràññatle ko ràññatle itam sunna yi njàpp ak ngëneel ya ak yey waral njàpp nee na war na leen a jàngal tam nu ñuy sangoo sangu set ñu koy wax sangu janaaba jàngal leen tam farata ya ak sunna ya ak ngëneel ya ak lan mooy waral sangu bokk na ci la nga xamee tam boroom kër war na koo jàngal ak njabootam mooy nu ñuy tiimee ak lan mooy waral tiim ak àtte yi nga xamante ni sunu borom daf koo gàll tamit gaaral jigéen rawatina jigéen jullit tam te mooy àtte yi jëm ci derete mbërëg ak dereti wasin ak ñaari deret yooyu su dalee jigéen ji lan la ko sariya yi tere mu def ko nee na yëpp bu ko jàngalee te mooy aju ci ak laab nee na la ci topp war na koo jàngal julli ak nan lañuy ñuy jullee leeral ko lan moo cay farata ya luy faratay julli ak luy sunnay julli ak luy ngëneele ak lan mooy yàq julli nee na itam war na koo jàngal koor ak faratay koor ak sunnay koor waaye yooyu yëpp nag nee na ginnaaw ba mu gëstoo ni gëmee yàlla ba xam ne noonee lañ ko war a gëmee war naa borom kër itam sëriñ bi nee na war naa jàngal soxnaam xamal ko mbugalam yàlla nam mettee def ci moom mu ragal mbugal moomee ndaxte loola mooy tax lu yàlla tere mu mën koo jëm koo moytandiku nee war na koo xamal tuyaaba ja nga xamante ni sunu borom dig na ko nit ñu baax ñi ci aljanna ndax nee na loola itam mooy tax mu sawar ci jaamu yàlla ndax lu tax muy def loolu moom borom kër nee na yonent bi daf ko tuddee ab sàmm te nee na loolu muy sàmm ci àdduna nag moom borom kër te mooy njaboot ga di doom yaak soxna yaak surga sa nee na ëllëg borom bi tabaaraka wa taala dana ko laaj lam doon sàmm nan la ko doon sàmmee arrajulu raain fi baytihi wa masulun an raiyatihi moo tax yonente bi alei salatu wasalaam itam waxoon ne an nisaau saqaiqu rijal mooy jigéen ñi ñooy naw góor ñi jigéen ñi ñoo ñooy góor ñi ci lan mu ne fi fi imtisaalil awaamiri wa ijtinaabi nawaahi mooy yàlla digal góor moom la digal jigéen lim digal góor ci lu baax moom la digal jigéen ci lu baax lim tere góor ci lu bon itam moom la tere jigéen ci lu bon ginnaaw def koo digal nag muy jàng noonu la digalee ni mu ko digalee góor ni la ko digalee jigéen kon boroom kër war nay sonn ci ak njabootam rawat na ay soxnaam ak i doomam ci ñu xam faratay jëm yooyu ndax kat nee na ñàkk sàggane sa njaboot dana waral ëllëg nit ki dem ba nar mucc njaboot ga laxasu ko ne ko doo demee noonu ndax xadis ba nee na inna awala man yataallaqu biir rajuli fi l qiyaamati ahluhu wa waladuhu nee na ëllëg bis penci boroom kër dana dem ba yaakaar ne mucc na waaye ak njabootam langaamitu ko muy ay soxnaam ak i doomam taxaw ne ko mënoo ñàkka layoo ak ñun fa yuqifuunahu bayna yaday rabbil alamin ñu taxawloo seen borom kër boobe wala seen wayjur woowee ci kanam yàlla tabaraka wa taala jox yàlla seen njàmbat yi ñuy jàmbat ca seen boroom kër boobee ak wala seen wayjur woowee naan boroom bi yaa rabbana xuz lana bi xaqina minhu yow borom bi ñoo ngi lay ñaan sun boroom kër bii wala sun wayjur bii àq jim ñu yoroon biñ nekkee àdduna dañoo bëgg nga jëlal ñu sun àq jooju ci moom lu tax mu ne ñu tàmbali jàmbat ñoom njaboot ga di soxna yaag doom ya ne fa innahu ma allamana ma najhal mu ngi nii waaye biñ nekkee àdduna lañ réere woon ci sunu diine nanguwuñu ko a jàngal te itam wa kaana yutimuna al xaraama daf ñu daal dundale ci loo xamante ni lu araam la wa nu laa naalam taxamuñ ko woon ko defee borom ba fayul ko fayul njaboot googee di soxna yaag doom ya àq yooyu xam ne nii way jur wa yore leen ko wala borom kër ba yore leen ko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 sunu laa ilaaha illallaah sunu laa ilaaha illallaah bismillahi rahmaani rahim kon ñoo ngi woon ci laaj boobu sëriñ Omar Diop laajoon sëriñ bi te mooy warugar yi nga xamante ni boroom kër yoreel na ko ak njabootam ñu tolloon fi nga xamante ni ëllëg bis ci boroom kër dem na ba yaakaar ne mucc na njabootam la ngaa miitu ko jàmbat boroom ne ko na nga ñu nangul suñuy àq ci moom ndax bañ nekkee àdduna lañ réere woon ci sunu mbiram diine xamaluñu ko woon te mi ngi nii bañ nekkee àdduna itam daf ñu daa dundalee ci lu ara araam te xamuñ ko sunu borom jëlal ko jëlal leen seeni àq ci seen wayjur woowu wala seen borom kër boobu mu teg ca ne wa inna asadda nnaasi adaban yowma alqiyaamati man jahala ahlahu nee na ki gën a tar mbugal ëllëg bis pénc mooy ka sàggan ba nga xamante ne bi mu nekkee àdduna ak njabootam dañoo réer rawatina ñu réere seen mbiram diine nee na ka gën a tar am bugal ëllëg yowmal qiyaama wala yaasu ndax nee na dañ koo digaloon mu fegal boppam sawara fegal ko ak njabootam mu sàggane ko ndax borom bi moo ko digaloon ci laaya juróom benn ca sóoru tahrim ne ko qu anfusakum wa ahlikum naara mu sàggan ba fegalul boppam sawara fegalul ko ak njabootam wala mu jéem a sowe boppam rek bañ a ak njabootam boobaa mbugal moomee dal ci kawam boo de bu borom kër nag bu demee bay digle ak tere na seet la ëpp njariñ mu jiital ko seet la nga xam ne moom la lislaam jiital mu jiital ko ca ndigal ya la mujje mujj ko ndax mën ngaa gis borom kër boo xamante ni kuñ déggal ci njabootam lu wax ñu def waaye xàmmewut yooyu ma léeg muy jiital lu lislaam jiitalut mujje loo xam ne lislaam daf koo jiitaloon wala mu seet loo xam ne am na njariñ waaye am na lu ko ëpp njariñ mu jiital la ëpp njariñ bañ jiital la ëppoon njariñ la am njariñ ca la ëpp njariñ la ëpp njariñ la jiital ndax nit koo xamante ni lu mu wax ñu lu mu digle ñu def ci biir ak njabootam lu mu tere itam ñu bàyyi waaye xàmmewut yooyu mooy ka nga xamante ni léeg mu leen di tere la gën a tuuti ba noppi bàyyi leen duñ nangoo julli julli yi juróom te jiitaloon julli yi juróom ba seeni cër làggat ca mooy taxoon lépp lu leen sariya tere ñu mën koo bàyyi ndax inna salaata tanha anil fahshaai wal munkari am na ci nit ñi ñoo xamante ni tam dañuy jàng luy defar seen àdduna rek ba rafetal ko ba noppi sàggane faratay jëm yooyu ñu doon wax te moo li nga xamante ni mooy defar seen àllaaxira te àllaaxira nag mooy des te loolu nag doy na waar kon bu la yàlla baaxee nga am ak njaboot moo xam ñi ay góor ak jigéen nga am soxna wala ay soxna na la wóor ne jox na la xéewal te xéewal nag dis caa war a sant borom bi te ñañ cay sant borom bi mooy nga foog xéewal ga delloo ko ci lu neex borom bi tabaraka wa taala ci jàngal leen bañ xam seen diine ci yar leen itam bañ am yarab lislaam bu wér Sénégal nag duñu wax ne jànguñ waaye am na ñu fiy jàng ñu baree baree bari waaye ñu baree bari yi ñuy jàng itam dañoo gannaawal njàngalem diine te loolaay defar seen àllaaxira nag yittewoo sa àdduna ba fàtte sa àllaaxira itam bokk na ci waru te yàlla nañ ci yàlla musal moo tax sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ca dénkaanem boo xamante ni waxtu nekk ñu mën koy jariñoo bokk na ci lam ne waxoon ne allimu abnaakum wa azwaajakum wa ajaalakum wa kulla man taallaqa bikum maa awjabahu llahu alayhim ngal la jàngal leen seeni njaboot muy doom yu góor yi ak yu jigéen ja jàngal leen seeni soxna ak ñëpp ñoo xam ne aju nañ ci yow yéen na ngeen leen jàngal la yàlla gàll ci seenu loos muy faratay jëm ya nga xam ne ñoom ñoo ko mën a defal seen bopp kenn mënu leen koo defal na ngeen leen jàngal bañ xam ko bu ngeen ko deful nag mu teg cëp ko moom Serigne Touba na wa illaa sawfa na yawmal qiyaama nee na bu ngeen ko defut ëllëg bis pénc yàlla dana leen taxaw laaj leen looloo ngeen sàggane njaboot ga mu waxaat feneen ne ngal la dem leen jàngi faratay jëm yooyu ba xam ko na leen jaral sax ngeen jàngu ci làkk wi nga xamante ni moom ngeen nàmp muy wolof yeeg tukkulóor yeeg séeréer yeeg bambara yi neen ko ci jàng yi ba xam ko looloo gën mu teg ca ne waman lam ku deful lii ma ko wax ku nanguwut a jàng faratay jëmmam yooyu bi mu nekkee àdduna ëllëg bis penc nee na yeddee munta ñàkk de waaye buñ dee yedd bu mu yedd ku dul boppam waman lam fala yelaw mën na illa sax moo tax mu dikk ci téeréem bi mu tudde tasawul sixaar wax ne yàlla araamal na ci bépp mu kallaf muy jëf jenn jëf lu dul ne def caa xam atteb sariya man kaana jaahilan bi fardihi walam yasal fa nafsahu abada wa dalam nee na képp koo xamante ni maanaam réere na farataam te nangu ko laaj ëllëg bis penc dana am kum tooñ dana am ko alko waaye na ko wóor bu alko moo alak boppam bu tooñee itam moo tooña boppam ndax dafa sàggan ci loo xamante ni waroon na koo xam ci àdduna waroon caa taxaw moo tax nag moom sëriñ bi bi ñu digalee ñu jàngi nu ñuy faratay jëm yooyu xam nu ñuy jàppeek nu ñuy tiimeek nu ñuy sango sango set nu ñuy jullee farata yaag sunn yaag nu ñuy wooreek ak lu baax ngir tënku ci ak lu bon ngir moytandi ko dane am na lu ma leen ci gàddul mooy danaa leen taarifal ay téere yoo xamante ni su ngeen ko ubbee yii ma leen digal bu ngeen demee den ko ca mën a xame la mu nag def na ko ndax téere yu ñuy bëgg a tudd loolu rek lay jàngale muy tasawudu sixaar ak tasawudu subbaan jasbatu sixaar zaadu zawi taalum al jawharu nafis nahju qadaa'il xaaj munawwiru sudur mulayyinu sudur magaaliqu niiraan masaalikul jinaan mawaahibul quddus fatxul mannaan fii jawaabi abdurahman yii faratey jëmm rek lay jàngale bokkut xasida yi nga xam ne nit ñi dañ koy jàng di ci barkeelu ñu xam nag ne kon ku la puus ci am njàng woonale ci aw yiw ndax sayidna moaz sayidna moawiyat ibn abi sufyaan wax na ne bokk na lim déggoon ci yonent bi alei salatu wasalaam moo waxoon ne man yuridillahu bi xayran yufaqihu fi diin ku yàlla na mu ci yow aw yimu dana la jox sol xam-xamu diine looloo lii nag lu baax lii moo tax sëriñ bi di ñu xiirtal ci waxtu nekk ci aw njàng di ñu ca woo wax na ñëpp nañ jaaju jàngi diine jàngal ko njaboot gi rawatina soxna yi ak doom yi kon ñu xam ne kon xutba bi nga xamante ni moom la al imaam nar def mi ngi jëm ci laayante biir googu nga xamante ni Sëriñ Tuubaa waxtu nekk mu ñu ci daan soññi ba bindaloon dénkaane bi <clears throat> ak tontu li mu ngi bindal ko Sëriñ Omar Diop mu wax ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waxoon na ne diine ba jeex mooy laayante biir ak diinu nasiha ñu ne ko kan la ñuy laayante biir mu ne yàlla ak yonentam ak téereem bi ak njiiti jullit ñi ak mboolem jullit ñi yàlla nag niñ koy laabire mooy gëm ko ak nangu ko dëggal yonent bi niñ koy laabire mooy lim indi ne ci yàlla la jóge ñu gëm ko nangu ko jëfe topp sunnaam yon sunna si yonent bi aleyhi salaatu wasalaam kilifa yi itam ñu nangu leen a topp tey woy ci seen i ndigal te bokk nañ ci liñ ñu digal nag ñu jàng ba xam suñ faratey jëmm jullit yi itam loo gis ci lu baax nga xiirtal leen ca loo gis ci lu bon tam nga moytul leen ko kon nañuy topp ndigal yàlla ñu yàlla xeet ci ñuy topp ndigal tey moytandiku tere di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu yàggal fi sëriñ bi ba mu àggale mboolem naalem yi te ñu ànd ko moom wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa taala wa barakaatu ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu an laa أشهد أن لا alhamdulilahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala sayyidina muhammadin ashrafil mursaliin nashhadu an laa ilaaha illallah wahdahu laa shariika lahu shahaadata dii ixlaasin fi tawxiidihi wa nashhadu anna sayyidana muhammadan خلاصته من خلقه ومختاره من عبيده أما بعد فيا أيها الناس اعلموا وفقنا الله وإياكم أن النصيحة في الدين أوجبها الله تعالى علينا في أقوى في قول نبينا محمد sallallahu alayhi wa sallam qaala alayhi salaatu wa salaam addiinu nasiha qulnaa liman yaa rasuulallah qaala lillahi wa likitaabihi wa lirasuulihi wa li a'immati almuslimiin wa aammatihim wa annasihatu lillahi hiya al-iimaan taatuhu bilqalbi waljawaarix wannasixatu lirasulihi tasdiquhu fima jaa fima axbara wa jaa bihi wattibaacu sunnatihi wa nusratu diini wannasixatu li a'immati lmuslimin taacatuhum wa mucaawanatuhum ala alxaq wa amruhum wa amruhum bihi wa i'laamuhum bima ghafalu anhu min umuuri al-muslimiin wa huquuqi ibaadillaahi ta'aalaa والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى ما يصلح آخرتهم ودنياهم wa taalimuhum bima jahiluuhu wa amma alkitaabu fa qawluhu taala waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alxayr wa yaamuruuna bilmacruuf wa yanhawna can almunkar wa ulaaika hum almuflixuun الحمد لله الرؤوف الرحيم ذي الطول الواسع والفضل المدرار العزيز العليم نشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفار ونشهد أن سيدنا محمدا رسوله روضة المعارف ومنبع الأنوار أما بعد فيا أيها الناس وفي آية في الآية التي أسلفنا ذكرها وحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بيان الإيجاب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلهما الشارع الحكيم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 إذ كراهة المعصية من مرتكبها واجبة واجبة على كل مسلم لقوله صلى الله عليه وسلم تقربوا إلى الله ببغض أهل المعاصي والقوهم بوجوه مقهرة والتمسوا رضا الله بسخطهم وتقربوا إلى الله بالتباعد عنهم ومن حق كل من ينصت إليه أن ينتفع بوعظه wa yanfaa annaasa bihi wa allaa yaxtarisa min ittibaaci lhawa fi jamiihi aqwaalihi wa afcaalihi wa axwaalihi nasalu llaha lakum lana wa lakum alxaafiyata fi dunya wal axira wa xusna alxaatimati bi xadiimi taaha alayhim assalaam amin yaxfirullahu lana wa lakum allahu akbar allahu akbar ashadu an laa ilaha illa allah ashadu anna muhammada rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar laa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 الله ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله asalaamaaleykum. asalaamaaleykum.